ne sëriñ bi nee na mi ngi leen di seedeel ni seen ñëw bi nee na moom day ku ci kontaan la nee na ku ko yàkkamti la ku ko gis la ku leen bëgg a gis la nee na ca ginnaaw nag nee na ca ginnaaw déggoon na ñu ni ko Abdoul Aziz Mbaye mii ak Mamadou Ibra Kane ñu ngi lay wut booba nag nee na amoon na sabab waaye mboo oh, moom ñemewul nag journaliste yi torop ndax nee na làmmiñam yi xëy na rëy na waaye nee na du tudd nag journaliste nag ndax moom li muy ragal mooy ku ko toogee fu mu nekkul te ñoom nag lu leen neex wax loolu moo tax mu ragal leen nee na moom daal du wax ci ñoom dara lu dul ni leen yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla barke seen liggéey te yal na yàlla wañar seen làmmiñ ba ngeen di wax dëgg nag nee na ngeen defar nag seen plume ba lépp lu ngeen ci bind muy loola nit loo wax rek ci moom nee na na xam ni lu ko yées mi ngi ci yow te waxuloo ko nag nee na journaliste yi war naa am waroon naa am benn semaine boo xam ne semaine euh, journaliste la su ko defee ñuy wax nag ci seen bopp nag di ñu nettali daaw ba ren lii laa fi def lii laa fi wax lii dëgg la lii du dëgg lii dañ maa neexal lii man maa ko sos ndax dama mere kama doon waxal sëriñ bi nee na loolu li ñuy nettali yëpp nee na loolu amagu ci waaye nee na moom daal li xew te xew waaye nee na moom yëbu leen nee na respect la leen ameel réew mi itam nee na réew mi politique daf fee bari nee na maîtriser wunu nag luy politique moo waral ku mer rek wala ku ñu wàcce rek nga dem defari parti nee na parti parti yi ba kañ dangay mujj rek doota am électeur ndax électeur bi mooy chef de parti bi su ñëpp dee chef de parti parti dootul am sens nee na nanu nangu suñu soor ñu sivir ko moo di réew mi amul dara ñu doyloo nag li fi nekk nag bu ñu bëggee def nag dara ni feek président mi ngi fi danaa am loolu bu fi président jógee soo jubloo ca yàlla mu wan la ginnaaw nañu wax jàmm te nag nu jëfe ko nag ndax réew mi yëpp ñu ngi wax jàmm waaye kenn doxul jàmm kenn jëfulit jàmm kon jàmm yàlla ma nga toog di déglu loo ñaan te muy dëgg ci yow ñu mu fekk la ca ci yërmandeem ud'uuni astajib lakum